mbokk yi général Malika ngi noonu ak Émile François Gomis ñu koy wax Franc oh. final poids lourd baa ngi noonu. abit baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ final poids lourd baa ngi noonu général Malika Émile François Gomis 23 heures pile le avril 2021 PA Events Prêt Prêt Events moo ñu fi woo Franc daw na jël tànk ba Émile François Émile François Gomis daw na jël tànk ba Général Malika rasu mu bal ko añ ko bàyyante nañu Franc Général Malika Franc Général Malika Franc Malika Général ko léegi Franc bañ mu plaqué ko bal na ko Général eh, Malika Franc Général Malika oj na ko Franc bañ Franc wàcc na Franc wàcc na ba du ko plaqué Franc wàcc na Général Malika Franc Général Malika Franc Général Malika dafa dugal bopp bi ndengeñ ko Franc fi mu doon daa am problème gisul Général Malika Franc Général Malika Franc Général Malika Franc final poids lourd PA Events mise 3 millions 600 bàyyante waat nañu ñoom ñaar Franc Général Malika mbokk yi Général Malika Général Malika tal fa la daan léegi Franc daan aada boy Général Malika Franc bëre nañ fi léegi bëre bu neex Général Malika Franc ñoo ngi nekk ñeente Général Malika Franc Franc jàpp na ci loxo Général Malika ku nekk jàpp na sa loxo moom ñoom ñaar général Malika Franc Franc bi ne léegi suuf si eh Franc jël na tànk général Malika ba du ko mbot Franc jël na tànk ba Franc jël na tànk ba Franc nga bëgg a plaqué waaye général daa bañ général Malika Franc eh Franc général Malika wet ga général lañ ca wet ga général Franc eh général fa nga jàpp fa nga jàpp baaxul. Franc Général Malika Franc Général Malika dem na ci wet ga takk na ko takk na ko day tëdd wàllu koy wër na ko ndomba Franc wër na ndomba Général Malika Franc wër na ndomba Général Malika da koo bëgg a daan Franc Général Malika Franc Général Malika daanoogul Franc Général Malika Franc Général Malika Franc Général Malika Franc wër na ko ndomba Franc Général Malika

daan na na. daan na général Malika. Franc na général Malika. jaaro bi daanati na. Franc daan na général ba 3 millions 500. PAB Evans mu ngi noonu. 3 millions 600 ma. hay waay Franc jël na ba.